dal leen ak jàmm fii ci Sénégal di réew bu am ay coppite yu mucc ayib ci wàllu technologie tey ñu fas yéene def ab gëstu bu yaatu jagleel ko ay école de formation professionnelle ci wàllu informatique ak technologie doon lu am solo ci transformation numérique ci réew mi lee bokk ci Afrique sow jant bile gëstu ñu ngi ko tàmbalee ci centre de formation professionnelle ay technique Sénégal Japon programme yi ñuy offrir les étudiants déjà dañu am ñaari niveau d'entrée ñoo xam ne BFEM la ñuy duggee donc là mën nañu fi def électrotechnique mën nañu fi def électromécanique mën nañu fi def mécanique automobile après suñu paree ñu am brevet de technicien bu leen permettre yu liggéey dans l'industrie am na nag ñi xam ne dañu am bac technique wala bac scientifique wala BT bi mën nañu fi ñëw def fi deux ans am BTS boobu dinañ ko def en informatique industrielle et réseau en maintenance des engins lourds maintenance des installations du bâtiment automatique ak électromécanique il est arrivé aussi ñu def ay CPS mais yooyu sur commande yoo xam ne bon même ku amul BFEM mën na ñëw def ko def ko 6 mois am CPS bi. tey ku fi def sa BTS nga def sa bac def plus 2 ans nga génn boo demee bitim réew mën nga fa kon ne jàngaat ñaar ñetti at. wala nga dem fii nii ci école yi nga xam ne ñu ngi fii ci Sénégal lu ko mel ni polytechnique boo fa defee at boo génnee nekk ingénieur. kon li ñuy def fii lépp loo xam ni ñu ngi ko fiy def boo dem ci àdduna di nga mën a am continuité pour mën a def jàng boobu. ci biir centre bi fekk nañu fa ay étudiants xarañ lool bi yëngu ci ay programme lu ci mel ni intelligence artificielle ak maintenance des engins lourds. fii lañuy ñuy defee suñu pratiquer en mécanique générale. et dañoo am deux compartiments ci biir département bi bii mooy fraisage beneen côté bii di tournage maintenant au niveau des tours on peut réaliser euh, des pièces de forme cylindrique hélicoïdale des engrenages et cetera ci côté départ côté fraisage bi on peut réaliser des pièces de forme prismatique complexe et tout machine bi moom lañu naan tour daf ñuy permettre ñu euh, defar ay pièces yi nga xam te nii ay forme forme cylindrique lañ yore quoi euh, par exemple je prenons l' exemple de axes yi nekk ci velo yi on peut réaliser ça avec cette machine puisque lii c' est le mandrin moom la ñuy serrer pièce bi boo serree pièce bi ba pare après tu allumes moom mooy tourner sur elle-même pour mouvement de coupe bi maintenant lii outil bi moom moo yore mouvement d' avance bi maintenant boo avancé sa outil ba mu egg ci pièce bi euh, rotation wu pièce bi moo lay permettre tey jii nii nga mën a di matière yi nga soxla ba am pièce forme bi nga soxla. machine bi lañ naan un laminoir c'est un laminoir de bijoutier ça a été réalisé en tournage et en fraisage euh, ñaari machines yi ñoo ñu permettre ñu réalisé ko et moom la bijoutier di utiliser pour defar seen bagues yi seen collier yeeg yooyu noonu forme bu ñu mënti soxla tamit ci machine bi lañ koy amee. ci bile centre am na benn département bu ñuy wax électronique mécanique bile section mooy structure métallique ñu fi defar ay soudure wante itam bépp pièce métallique comme machine bii nga tiim moom la ñuy woowee cisaille guillotine dafay dagg tôle yi tôle moom mooy profilé kii yi nga xamante ni si nii mooy tôle yi nga xamante ni si nii acier lay doon da koy dagg yi muy dagg nag yu bari la xeet yu bari ça dépend de leur épaisseur plus épaisseur bi di am solo plus machine bi di am doole. machine bi dafay tàkk nga gis ni da nga koy bàyyi tuuti mu jël temps jël allure jël départ bu baax a baax a baax ba nga xamante ni si nii weñ goo ci mën a dugal rek da koy dagg ci saa si. mën naa régler dimension bi ma soxla par exemple ma def cent su ma defee entrée da nga gis valeur bi dafay ñëw gis nga. dafay ñëw ba 100 maanaam mooy buté bële ci ginnaaw su ma poussé tool bi gis nga su ma su ma laalee pédale bi aussitôt dafay daggutool bi su ma puusaatee su day dagg tool bi machine yu am doole la di tax bi ñuy jënd ci marché bi bu ñu ñëwee dañ koy verser fii ci trémi bi buñ ko verser ci trémi bi dañ koy bàyyi mu jàll boo taalee machine bi machine bi da koy baat effectivement da ngay defaale benn quantité d'eau boo paree nga récupérer ko fii ci vanne bi boo ko récupérer boo paree dangay am jus di tax comme bële ngeen di gis na le bële pour buy la buy nga def ko fii pain de change machine bi ci biir da koy battre bu paree da ngay récupérer pëndëx buy pëndax buy bi nag mën nga dem defar ci ay jus yu bakkane yoo xamante ni si ni wax dëgg yàlla wala tabarka la daal waaw gaaw na ma ay ay kilo kiloy saaku mën nga koo battre ci benn jour CFPT Sénégal Japon am na itam ay élèves yu xarañ lool di yëngu ci wàllu technique ak électronique. Euh, en fait lii benn projet la projet bi télémètre dañ ko tuddee. des fois dañuy gis menuisier yi euh, di utiliser ah. mètre léegi au lieu que ñuy utiliser mètre bi kenn di ko téyel feneen keneen ki téye beneen bout bi ñuy mesurer pour mën a am distance bi ñu soxla loolu noonu mën na yàgg léegi pour numériser cela ñu créer benn télémètre léegi télémètre bi dañoo utiliser benn. Euh, ultrason ak benn écran afficheur léegi si fois que nga jël ultrason bi nga positionné ko ci kii bi nga bëgg a mesurer comme distance bi nga mesurer automatiquement da lay générer euh, nombre de centimètres yi wala nga régler ko en millimètre ou bien en mètre. lii poubelle intelligente la euh, dañ ko defar par exemple pour tey jii nii nit ñi bu ñuy dem ci poubelle yi dañuy am contact ak moom te microbe yeeg yooyu noonu. Euh, c'est pas intéressant quoi que ñuy laal poubelle beeg yoon alors que mën nañ ñëw ba sànni mbalit ci poubelle bi te duñ am benn contact ak moom. léegi composant yi ñu mooy ultrason bi bu ma ko doon misaal ci nit ultrason bi mën naa ne mooy bët yi moom mooy xam ni nit mu ngi ci kanamu poubelle bi maintenant carte bi mën naa ne mooy cerveau bi. Euh, bu ñu nee cerveau moteur bi foofu mën naa ne mooy actionneur mooy loxo yi moom mooy def action bi ñu soxla maintenant bu nit ki ñëwee ba jàkkaarloo poubelle bi automatiquement actionné euh, pour ubbi poubelle bi après nga sànni li ngay sànni mais dalay may benn durée de trois secondes bu weesoo trois secondes day tëjuwaat ça dépend nag ci ki koy programmer ak programme bi par exemple mun naa ko programmer sur une durée de d'une wala de trente secondes ça dépend ci man euh, temps bi ma bëgg mu ubbeeku et je pense que ni tamit c'est distance bi tamit ak nit ki tamit dañ koy programme par exemple ultrason bi mën na jël jusqu'à 4 mètres mais est-ce que c'est important tey jii nii ma bàyyi poubelle bi kuy romb à 4 mètres poubelle bi du ubbeeku donc dañuy programmer distance bi de telle sorte que tant que ñëwoo ba tiim ko du ubbeeku. premièrement pour éviter nit ñi di nekk en contact ak euh, microbe yi. mën nañ ko programmer avec des roues yi nga xamante ni poubelle bi euh, dina ça facile à déplacer tu pour mën ko këpp yooyu noonu quoi. bi tax na itam ñu dem ba de la Delafosse foofa itam découvrir nañu ay élèves ak i étudiants yi def F6 ñu fekk leen ci laboratoire de chimie bi nekk ci bërëb bi nu nous au niveau des des locaux de F6. dafa nekk euh, formation bu baax bu baax trop looloo tax ñu ngi remercier ADET si initiative bi mu def pour mën a xamle formation bi parce que élèves étudiants yeeg élèves yi koy def bu ñu génnee. ñoom ñooy mën a nekk ci industrie chimique yi fi ñuy defaree ay eau javel par exemple à la Sonacos aussi dinañ nekk mën nañu nekk aussi ci industrie cosmétique yi donc vraiment volet boobu noonu yëpp f moo koy moo koy doxal te dafa am solo secteur dans euh, de développement la chimie pétrolière yi sax f moo koy moo koy doxal donc bu ñu continuer seen étude mën nañ dugg ci formation alimentaire yi industrie cosmétique yi industrie chimique yi fabricant pharmaceutique yi mën nañ fa dem di fabriquer ay aspirine ak yooyu déjà fii ci laboratoire yi si niveau terminal bi il font des la saponification dañ koy def mooy pour defar saabu na la ñuy defaree savon dañ koy def dañuy defar euh, ay TP def ay travaux pratiques sur ni ñuy defaree aspirine donc yooyu yëpp dañ koy def dosage dosé eau de javel xam ni ñu dosé ndox aussi. fii boo gisee affiche bi mooy def laboratoire de chimie donc fii la étudiant wu ak élève wu F6 yi di defee seeni manipulation donc F6 comme que niveau terminal la c'est des élèves bu ñu génnee nag mën nañ dugg def ci seen BT BTS. pour éviter ay encombrement seen saak yeeg yooyu yëpp dañ koy def ci box bi pour éviter lii ñoom dañ koy jël dugal ko ci box benn box. léegi fii seen salle la. seen est salle boo xamante ne seen produit chimique yëpp fii lañ koy denc voilà produit yi defee seen travaux pratique yëpp fii la nekk boo xoolee xoolee seen matériel ñoo nekkee côté bi donc côté bi moo am verrerie yi. donc am na partie boo xamante ne fii c' est la réserve c' grande réserve boo xamante ne dañuy denc produit chimique yi fii bu ñu jëlee produit chimique yi fii lañ koy indi defar ko ba pare doog ko jox élèves yi ñu liggéey parce que ñoom ils travaillent avec de petites concentrations ñu leen di won nan la ñuy defee concentration yu tuuti ci produit chimique nga xam ne du leen sonal du leen gaañ avec des dañuy am ay équipement de protection individuelle tamit ay. yii les étudiants ñu ngi ñuy présenté seen expérience bi ñu duppee acido basique. léegi pour nu am solution bi dafa simple trop lu simple lu simple neen def ñoo jël déjà ñoo jël kii benn benn bouteille vinaigre léegi nu def ko ci kii bi ci ci béchère bi léegi nu diluer ko ak ndox l'eau distillée léegi nag bu ñu paree après nu yokk ci phénolphtalène benn produit indicateur coloré trois gouttes léegi après ñu jël soude bi mu nekk nii léegi ñu def ko ci burette bi léegi après ñu def goutte par goutte pour mën a am changement de couleur expérience bi nu ngi koy woowee acido basique tey dañoo ñëw pour expliquer leen maanaam suñu technologie fii ci réew mi avancé na bien vrai que ni nekkuñu université on est des jeunes lycéens mën nañ def série bii nii c'est bien possible mun nañ def euh, expérience comme comme vous le voyez ici présent am nañ ay matériel on fait des TP et tout pour vous dire que technologie bi daal avancé na des fois dañuy gis sax suñuy mbokk ay xale di dem ci yeneen réew pour def formation yi li am fee ne am na fii bien vrai que dafa dafa siiwul daal c'est sûr doy na. kii bi doy na. non damaa war a yëngal kii bi. arrêté. xaaral du fi dara. bu kii ñu dolli suut bi rek. yile expérience doon lu mucc ayib lool di firndeel itam ne Sénégal mu ngay wéy di am avancé bu baax a baax ci wàllu technologie. avancé technologie xam nga boo soxlee euh, généralement formation professionnelle li tax mu xaw a metti mooy que équipement bi dafa lourd. maintenant nag de plus en plus am nañu des structures yoo xam ne am nañu des équipements de. dernière génération école yu mel ni CFPT ak yeneen ñoo xam ne vraiment ak euh, industrie bi lu mu avancé avancé ñëw ñi xam ne dañuy génne fii war nañu mën a non seulement def maintenance bi mais war nañu man sax di opérationnaliser maanaam structure bu fi ñëw daal war nga mën a compter si ñun parce que effectivement nous avons des équipements de dernier génération équipement avancé technologie moom mu ngi avancé bu baax waa Sénégal moom mu ngi si rampe développement peut-être am na ay quelques difficultés mais yaakaar naa ne euh, les gens sont bien formés et mën nañu remplir ce rôle am nañu ay ressources yu ne mais daa am li leen dese mooy mooy accompagnement bi ak ñu jàppale aussi aussi ni daxayaa formation bi aussi ñu naan en tant que technicien parce na nekk seen président aussi ñu mën ñoo appuyer parce que tey yi na gis xale di ko def wax dëgg yàlla xale yii nii doo yeen jàppee rek mën nañu dem ci kanam. ñu bëri nag malheureusement xamaguñu woon secteur bi xamaguñu ko mais li ñuy def imaginal bu ñu mënee defar fii saabu mën a defar savon liquide saabu liquide. defar savon solide te bu baax bi boo xamante ne glycérine bi daf siy nekk donc loolu mën nañ dem ba am suñuy industrie fii donc pour industrialiser suñu dëkk il faut que étudiants yi ak élèves yi mën a jàng lu mel ni F6 génn dugg ci structures yi wala créer mu am ñu créer seen entreprise pharmaceutique et tout ñoom ñu mën ko liggéey carrément di def contrôle qualité wu produit yi di si di si génnee lu baax vraiment au niveau de notre société bile le jot na tey état bu Sénégal daal di koy teg loxo bu ko defee gën koo jàppale ndaxte doon na luy jëmale réew mi ca kanam wante itam gën koo jëmmal ci Afrique soo jant